wa salaamu ala rasulillah mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu dégg léegi bi may wax ci ci comme ni ko mbokk yi sàkkoo wax ni naa jéem a wax situation jàkka ji du ñàkk benn soldaaru yàlla buñ ci dimbale wala yenn ci soldaaru yàlla yi buñ ci dimbale euh, weer yi dépassé jotoon nañ cee wax mu amoon quelque nit bu ma ci jox yenn somme yi mais somme yooyu yëpp biñ ko boolee parce que ay ay ay cent cent trente mille la woon te gis ngeen jàkk ji situation bi ni mu demee loolu mënu ko defar jàkk ji mi ngi nekk 18 si 15 kon du jàkk bu ndaw ala kulli xaal xaal baa ngi ni kenn ku ci nekk boo ko gisee dina la doy yow yaa koy xamal sa mais li wér daal moom mooy li ma waxoon ci xutba bi rek bu ko nit ñi sàkku woon ci ma it du ma ko wax ndax laaj dafa neexul te jamono bi dafa bëri ñuy laaj te li ñuy laajoon duñ ko fa def ñun nag bugguñoo bokk ci ñooñu laaj bi ñoo xamante ni ëllëg day nekk responsabilité ci kanamu yàlla bugguñ ko en tout cas daal fii mooy masjidu sunna daaru jub morgue baa ngi fii ci ginnaaw alhamdulilah def naa ci li ma mën wax dëgg yàlla liggéey nañ ko ba teeraat rek ba mu taxaw morgue bi yaatul ndax morgue bi moom tam mi ngi nekk 7 sur 5 waaye moom it taxaw na lan moo sabab loolu li ko sabab mooy daara ji gis ne ko nii bu paree kii dina ko wan li fi nekk ci ay xale dañoo bëri te situation jullit ñi tey dafa métti ñun mënuñu toog di wax nit ñi ragal leen yàlla def leen lu baax ba pare ay nit indi bi seen doom mënatuñoo fay ñu fitnaan leen wala ñu dàq leen loolu moo ñu fitnaan waaye daara ji daanaka li ñuy dépensé par weer boo ko calculé dina dem ci ay ay ay parce que dina dem ci ay 48 sac 48 sac ceeb la nga xale yi lekk par weer macha allah laa quwwata illa billah seen entraînement seen te loolu yëpp man maay daw di ko tës tësi ala kulli haal kon yu mel noonu moo tax nag pour liggéey nii dana xaw a jafe waaye nag ñu ngi yaakaar yàlla di di yaakaar nit ñi bi ni dafa nekk jàkka jàkka bu boo xamante ni tey ñu bëri ci nit ñi yaakaar ñu ngi fiy jëriñu ñu ngi yàlla nee na yonentam nee na te fas ñu def fii loo xamante ni neexul yàlla loolu rek moom moo tax kon képp koo xamante ni yàlla may am loolu dimbalee nga dimbalee ko sa bopp def ko ci daa jàkk ji fañ la alhamdu loo def ci daara ji fan laa am mais suñu problème daal bi gën a rëy mooy jàkka yi moket yi moom ndax gis ngeen lii daanaka ku ñëw sax am na yére booy sol doon na koo toog mënoo fee entre kenn noonu la moom la neex ndax yu jàkk yonente bi sallallahu alayhi wasallam la woon ay ay xeedoon ak leneen te ñu fa doon wax ñëpp fa lañ jube kon ñun tamit lii bu ñu alhamdulilah jàkka ji ko tabax yàlla def na génn àdduna benn jaamu yàlla bu baax la woon bëggoon na koo àggale àggale daara ji mais yàlla dogal na kooku gaañoon depuis 2006 boobu nag la taxaw ndax boobu depuis dem fi mu taxaw nag ñun ñoo ci nekk di góorgóorlu maa ci nekk di góorgóorlu li ma am di def ba tey alhamdulilah mu taxaw ni fan laa xam kon bëgg nañ bépp jullit bépp jaamu yàlla boo xam ne am nga loo ci def fan laa xam gis ko boo xoolee même caméraman boo toppoon bu fële gis nga ko kii pasa ngi ni mel gis nga ko yëpp ni mel àll ne suñu wax lillahi alhamdu bu am koo xamee ne am na lu mu def fa lillahi alhamdu ndax lii boo xoolee gis nga mënut a daara ji ñu noonu ak mor bi ñu ko teen bi nii ñu mel daanaka la ñuy ci la ñuy root diggante jaxaay daal bu cubb ak cité gendarmerie ñoom ñëpp yàlla dogal a teen bi ci la ñuy naan te ñu teen boo xamante ne tey yàlla dogal sax ñu jumaa moo tax ñu def gis nañ mu toll armeel yaa ngi gis garab yi mooy armeel yi juma baa ngi nii baa ngi nii gis nga ko bi ñu liggéeyee morgue ni ko liggéeyee dañ doon préparé pour mu am deux tables table fii mu nekk sangukaay ñu def table fii fu ñuy sàngee ki ñu def fii benn étagère pour fu ñuy def bagage yi nga xamante ni ñu sang fa lañ leen di toppatoo loolu moo tax ma choisir doon defar morgue bu mag ndax morgue yi ci réew yëpp ay morgue yu ndaw la boo duggee doo am noo sangee mais gis nga bii ni mu yaatoo yaatuwaay bi nag moo ma nax ci liggéey bi li tax mu nax ma ci liggéey bi la ma yaakaaroon mën na ko ak la ma mosoon waxoon foofu la juumee ñun ñaar mais tey jii gis nga koy raax mënuñu ko des na ñaari taabu ay ay ay ka climatiseur yàlla dimbali nañu may nañu ko fan yi dégg ko mu des liggéey bi daal li ci des fii moom maçon bi mu ko évaluer nee dina dem ci ay presque ay ay cinq cent ba sept cent mille bu ñu ko amee rek lépp dina pare incha léegi fii daanaka bu ñu neexee sax ñu ne jàkka sang suul gis ni ko fi mu ne léegi-léegi dañuy dañuy sang fi nit ñu ko fay sangee dañuy dañuy ut ay xeer teg ko fi wallaahi kon bépp julli bu yëg loolu sa yaram war naa daw bu mu ne nga dimbaliñ ci jël nit teg la xeer sang ko ci buñ birig yaa ngi fële loolu moo tax ñuy sàkku ci bépp bonne volonté lu ñu ci mën def ci fii kuñ fi jullee sang fii julle la fii armeel yaa ngi nii lii moom moo tax ñuy laaj lu ci waaye mën alhamdulilah daara gaa ngi nii moom daanaka da jar mi ngi ni ci boo moom mooy daara loolu moo tax nag ñu ñuy sàkku ci ñëpp di yàlla te am yaakaar ne yàlla kañ la dinañ ko defal incha allah salaamaaleykum wa wa barakaatu def naa loolu loolu rek mën na baax